assouplissement politique pénale politique de réinsertion baisse criminalité à coupe budgétaire moo depuis dëkk États-Unis Suède les Pays-Bas nekk ci tendance su tëj seeni kaso yu bari au Sénégal administration pénitentiaire mu ngi ci ay chantier yu bari mu ngi tabax bâtiment pour mener de dëkkal ñoo ñee pas ko dénk. am nga ci xayma 37 établissements pénitentiaires au niveau du Sénégal Boy xool prison yu bari

soo demain, fu mel ni Bambey également locaux gendarmerie bu njëkk ba brigade bi comme occupé tuñ ko dañu am locaux yu bees dañoo jël locaux yooyu boole ko ak euh, prison bu Bambey loolu également un carré la boo xam mu ngi en cours de chantier nga dem Bignona également même chose. prise en charge casso non la chérie Nous nu détenu yi gën a bari état di gën a dépensé. à la date du 20 juillet bi ñu nekk nii 9 973 am 9973 détenus par exemple boo jàppee année 2012 détenu bu nekk li ñuy wax ration journalière yi nga xamante ne alimentation ak médicament mu 461 francs en 2012 En 2020 ñu ngi ci 1150 détenu bu nekk moom la am droit par jour donc soo ko jëlee par jour jël par mois jël par année détenu bi loolu la am 1150 152 alimentation. de prise en charge médicale Médicale, voilà mais en dehors également de ce taux. Mhm. xam nga nekkul ne lekk rek donc il y les dépenses courantes l'alimentation, la alimentation santé le transport mais les dépenses permanentes par exemple y da des jël en compte ci li détenu bi di électricité au téléphone à rémunération personnelle aussi. Nous appliqué une politique de réinsertion ak ay peines alternatives ci yenn délits prison yi dinañ gën a et détenu bi dina mën a jëriñ réewam ci travaux d'intérêt généraux comme liggéey ci yenn tool yi nettoyer dëkk la wala ou nag chantier yi nga xamante ne état da et employé ay